mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay cent quarante trois bi ci suratul an'am ci suñu borom di waxee ne samaniyata azwaaj muy ñu ngi noonu ay cent quarante trois suratul an'am samaniyata azwaaj alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi fàttali rek ne yàlla dogal na weer wi ñu nekk ñu koy tuddee zulhijja nga xam ne mooy weer wi mujj ci weeri lislaam ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk ya nekk ca Arabie Saoudite ñoom gisoon nañ ko samedi bi ñu génn loolu muy wone ne dimanche kon mooy nekk benn pan bi yowmu arafa mi ngi nekk altine ji di ñëw nga xam ne góor ak jigéen ku nekk war naa waajal woor ko bisu talaata ba moom mooy nekk bisu tabaski loolu kon mi ngi noonu doonte ne bokk na natt bu ñu yàlla nattoo muy li ñuy tuddee ay réseaux sociaux nit ñi lu leen neex la ñuy wax am na ko ci ŋàññi Arabie Saoudite naan duñuy référence dañoo juum dañoo kasa waaye fa lillahi alhamd yàlla mi défendre ay jaamam du ne Arabie Saoudite rek ñoo wax ne gis nañ weer wi waa Mali ñu ne gis nañ ko waa Mauritanie ñu ne gis nañ ko ca samedi ba bokk na ci déclaration yi ñu jotit waa Gambie ne nañ talaata la ñuy julli waa Guinée talaata la ñuy julli loole kon mbokk ñu xam ne talaata mooy julli tabaski ga te it ñu rafet njort ci ñaari mbir mbir mu jëkk mi mooy mennum réew lañu xam ci adduna bi ñuy attewoo lislaam kon ñooñu ñu rafet njort ci ñoom jàpp ni la ñuy wax dañ ko teg fu leer ca duñ ca dem ak seen bànneexu bakkan ñaareelu rafet njort bi yonent bi alayhi salaam dana woon yàlla du boole sama xeet bi ci ak réer kon suñu borom yàlla du woote ak ngan nit ñi jóge fu ne ci àdduna bi bisu arafat di bis bu màgg bu am yaakaar ci ñépp suñu borom di leen réeral di leen dajale ci beneen bis bu dul arafat loolu kon mbokk mi ngi noonu ala kulli xaal ñu bàyyi xel ci loolu incha allah comme niñ ko yàgg waxe it mooy comme bis la boo xam ne ñu bari ci ñun dañoo jàpp ne mooy bisub julli ñun fii dañ fii a organiser julli mu des nag yow jaam bi bu la neexee mën ngaa julli ñetti fan ya topp ca tabaski ga yépp doonte ne bisu julli ba moo gën ci rey sam xar waaye ñetti fan ya ca des yépp heure boo ca reyee sam xar rey nga ko ci fani tabaski loolu mbokk mooy xabaar bu njëkk bi ñaareelu xabaar bi tamit suñu boroom yàlla dafa jël kenn ci magi lislaam yi muy cheikh aboubacar aljazairi mi nga xam ni bokk na lu siiw fii ci sénégal téere boobu di minhajul muslim nga xam ne ñun yàlla dogal na mooy téere fiq biñ jëkk a jàngale ci suñu jàkke ji lu bari it ci ndaw ñi gëstu ci wàllu sunna ca amuñu accès ci arab bi minhajul muslim boobu dimbali na leen lu bare bari ci seen wàllu diine naam doonte ne bind na lu jóge téeméeri téere yàlla dogal na sànq ci tàkkusaan lañ ko doon jébbal boroomam yal na yàlla jéggal ko yërëm ko liggéey na ci lislaam liggéey bu àdduna yépp seede ndax yàlla dogaloon na lu ëpp juróom benn fukki at diggante timis ak gee mi ngi nekk ci jàkkay yonent bi alayhi salaam di jàngale diine ñun ñaari dars lañ fi am àllarba ak dimanche moom nag ay darsam semaine bi yépp la woon tey timis ba gee alquran suba timis ba gee hadis lan la daan wax lii de lañ fas yéene saxe tey alquran ëllëg hadis tey alquran ëllëg hadis lañu cay génne daal mooy teg suñu tànk ca buntu ajjana yàlla na yàlla tegal ko tànkam ak suñu tànk buntu ajjana daana waxit ne ay yéen jullit ñi soo demee ci dëkk yéeféer yi te it wër na fu bari nee na boo demee dëkk yéeféer yi bu 6 heures jotee ñu bàyyi seen liggéey jëkkante nañu seen night club ya seen restaurant ya seen cinéma ya mu ne yow jullit xamal na sa néeg bi gën a rëy mooy jàkka ja sa programme def ko timis bu nekk jàkka nekk sa programme te loolu it mbokk ku ko mënoon defit def nga lu yiw mooy diggante timis ak gee bu ci programme lu dul dem ci toog ci néegam yàlla ba di jàng la ngay jàng wala di def la ngay def loolee mbokk da ngay gis ne mag mu mel noonu la l'islam ñàkk donte ne boo dégloo rajo yi télévision yi yoonu kenn niwu ci amma le dernier des rappeurs ba nekkoon ca Hollande wala ca New York bu deewoon ñu tànqal ñu guddeeg bëccëg ci ne diw dee na ila axiri ala kulli xaal mi ngi noonu yal na yàlla jéggal ko yërëm ko te defal ñu ak ñun ak moom yépp àjjana di suñu wàccuwaay kon incha allah ñu jël suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
barakallahu fiik suñu borom mu ni auzu billahi min ashaytaani rajim xéewalal naa leen samaniyata azwaaj juróom ñetti peer min addaani isnayni ca xar ya ñaar góor ak jigéen wa min almaasi isnayni ca bëy ya ñaar góor ak jigéen qul azakarayni xarama amil unsayayni laaj leen ndax moom ñaar yu góor ya la yàlla araamal am ñaar yu jigéen ya am mashtamalat alayhi arhamul unsayayni wala la nga xam ne ëmb na ko lii di biiru yu ñaar yu jigéen ya nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin xabaara leen ma ci xam-xam su deene nekk ngeen di aju dëggu wa min al iblis nayni ca giléem ya it ñaar muy góor ak jigéen wa min al baqari isnayni ca ca nag ya ñaar góor ak jigéen qul azakarayni harrama amil unsayayni laaj leen ndax ñaar yu góor yi lañu araamal wala ñaar yu jigéen ya amma ishtamalat alayhi arhamul unsayayni wala la nga xam ne ëmb na ko biiru ñaari ñu jigéen ña am kuntum shuhadaa id wassaakum allahu bi haada wala boog da ngeen nekkoon di aji seede bi leen yàlla di dénk ci mbir mi fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ma ana ko gën a mën a tooñ ci kiy dóoral ci yàlla ay fen li yudilla annaas bi gayri ilm ngir yee réeral nit ñi ci lu àndul ak xam-xam inna allaha la yahdi alqawma zalimin yàlla day du jubal xeetu tooñkat yi mbokk suñu boroom ci biñ fi mujjee àllarba jeewees mi ngi ñu doon wax xéewal yim ñu defal ci tool yi fruit yaa ngoog mbay maa ngoog lu ni ci lujum ya yàlla defal nañu ko waaye ci bàyyuma yi tamit ndax benn bàyyuma la ñuy yónnee nga xam ne loolu rek la ñu mën a lekk mu ne déedéet wàcce naa ci yéen juróom-ñetti peer ca loolu mooy peer bi day composé wu ci ñaar góor ak jigéen may naa leen ñaari xar may leen ñaari bëy may leen ñaari nag may leen ñaari giléem mbokk xéewal googu ñu yàlla defal yàlla defal nañu ko pour ñu ci lekk naam pour ñu ci war naam pour ñu ci sëf naam waaye it yàlla defal nañu ko ngir ñu ci jaamoo yàlla borom bi nee na wa li kulli ummatin jaalna mansakan li yazkuru isma allahi ala ma razaqahum min bahimati al anam xeet bu nekk defal naa ko ak feet ngir ñuy nekk di tudd turu yàlla ca la leen yàlla wërsëgal ci jurub kër googe mbokk talaata bii di ñëw da ngay gis ni jullit ñi ci àdduna bi la ñuy war a rey yàlla xam cent millions ou deux cent millions ci ay xar ak i nag ak i giléem loolu yàlla jàll wa ala moo ñu ko defal ñu xam ne jaamu yàlla gu rëy la yonent bi alayhi salaam daana wax ni bépp deret ba ngay tuur fay ba yegg na ci yàlla avant muy laal suuf xar mi léppam tuyaaba la yàpp wa der ba weeya lépp lu ca topp rép tuyaaba la lay jural yowmal qiyaama li ngi noonu borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ci lan moo gën ci lu ñuy tabaski donte ne la gën a noot mooy xar moo ca gën donte ne boo demoon ci ñeneen ñu ne giléem a gën nag topp ci waaye xar mooy la gën mi ngi noonu borom bi it yàlla jalla wa ala may nañu kër gu nekk mel na xar doy na leen ak lu ñu bari bari may nañu juróom ñaari mbool juróom ñaari jul ñu nekk mën nañoo bokk benn nag ca ñoom ñépp ñu am tabaski bokk benn giléem te ñoom ñépp ñu am tabaski loolee kon la ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal ci loolu doonte ni arab yi ñoom seen wàllu bopp am na yuñ ca jëloon ne yii de araam na ci ñii yii araam na ci ñii comme niñ ko jànge woon àllarba gi passé suñu borom yàlla nag ne waaw kan ci yéen moo fekke bi yàllay dénkaane ci ne giléem sangam day wala xar sangam day wala nag sangam araam na wala ba yàllay dénkaane ne la mu ëmb ci biiram ba araam na ana ko ko fekke loolee kenn fekke woo ko suñu borom yàlla nag ni ana ko gën a mën a tooñ ci kay dóoral yàlla ci ay fen ngir réeral doomu aadama yi ci lu àndul ak xam-xam ngalawaay mbokk jullit xam leen ne bakkaar yi bokk na bàkkaar ba ca gën a màgg mooy duural yàlla subhanahu wa taala ay fen téeméeri njaaloo téeméeri nit ñoo rey wallahi moo gën a woyof te yàlla nga ni jaami yàlla yi yàlla nee na tëralal leen yoon woo xam ne da leen di réeral donte ne ni sun jamono yi tey booy déglu rajo yeeg télévision yi bari na lu bari lu ñuy duural suñu boroom wallahi benn lay amu ca suñu borom mu ne ana kan moo fekk ci yéen loolu bi ko yàlla araamal looli kon it mbokk ñu gis ni doomu aadama bi war naa góorgóorlu lépp lu muy dem ba naan yàlla nee na fekk lu mu am preuve bu leer la mu koy seede ca mbokk kenn dong moo am droit seede ne yàlla nee na muy suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu kon mi ngi noonu Cheikh Ali
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه محرما على طاعم يطعمه خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا فرقنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعدل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
barakallahu fiik suñu boroom mu ne ab yonentam qul laa ajidu fi ma uuhiya ilayya muharrama neel man day fekkuma ci li nga xam ne dañ koo waxee wax yu jëme ci man muy lu ñu araamal ala taimin yataamuhu ci benn aji lekk ca la nga xam ne da koy lekk illa an yakuna maytata lu dul ne dafa nekk midd aw damman masfuuxa wala deret boo xam ne nii bu bu ñu bu boo xam ne nii bu tuuru la aw lahma xinziir wala yàppi mbam xuux fa innahu rijis loolee day sobe la aw fisqan uhilla li gayrillahi bi wala boog ak génn topp goo xam ne dañ caa tudd weneen tur bu bokkul ak yàlla uhilla mooy wax ja nga wax ba ngay rey mbir ma mi ngi noonu fa man turra gayra baaxin wala aad koo xam ne nii dafa doon koo xame ne nii dafa loru ci jéggiwul dayoo uttura ku loru gayra baaxin ci loo xam ne bewul wala aadin ci jéggiwul dayo fa inna rabbaka gafuru rahim sa borom yàlla day kuy kuy jéggalaate la ku yërëmaate la wa ala alladina haadu bu dee nag ca kaw yahudiya moom xaram naa kulla zi zufur araamal nañ ci ñoom lépp lu am aw we wa min wa min albaqari walganami boo demee it ca nag ya ak ca gàtt ya muy xar ak béy xaram naa alayhim shuhumahuma araamal nañ ci ñoom seen graisse ya illa ma xamalat zuhuruhuma aw ilxawaaya bam des la nga xam ne yenu na ko seen gannaaw ya wala seen butit ya aw maxtalata bi azm wala loo xamee ne nii dafa jaxasoo ak yax ya zalika jazaynahum bi baxyihim noonee de lañ leen fay ngir seen beew ga wa inna la sadiqun ca ñun yàlla ñooy ñu wax dëgg mi ngi noonu mbokk suñu boroom jamono yi di suuratul anam di wàcc mi ngi wax ak yonent yàlla bi ne leen nee leen day xawma ci li ñu wax yu ci man lenn lu yàlla araamal aji lekk ja di ko lekk lu dul lii may bëgg a lim loolu mbokk lum lay jàngal kaw suuf lépp lu ñu fiy lekk dagan naa lekk bam des lu wér lu jóge ci sunna ne lii daa xaraam lépp loo xam ne amuñu preuve ci sunna ne lii lu xaraam la yow doomu aadama soo bëggee lekkal suñu borom nee na xalaqa lakum ma fil ardi jamia bind na ñeel leen li nekk ci kaw suuf lépp lu mën a doon léegi nag mu ne li yàlla araamal ci ñun del mooy loo xam ne maytata daa midd ca mbokk midd mooy lépp loo xam ne dafa faatu ca rendi wuñu ko rendib sharia xar mi jóge woon ca kaw étage bu ne delli ci suuf dee ca loolu xa oto bi da koo mbëkk da ngaa yow fekk buum bi xot ko mu dee ak yu demee noonu comme nañ koy jàng suratul anam loolu jullit du ko lekk ba mu des nag midd goo xam ne daa da day dund biir géej loo xam ne géej lay dund bu dee dafa dee it yàlla subhanahu wa taala daganal nañu ko te bokk na ci xéewalu yàlla mu daganal ñu loolu waaye scientifiquement it mujj nañ gis jën bu deeyee rek mboolem deret bu nekkoon ci yaramam day transformé wu loole moo tax dana néew ngay dagg ay jën fekk deret ja di ah doon di tasaaroo loole gis nañ ko konte na ñun la tax mu dagan ci ñun muy sunna moo ne dagan na ci ñun loolu bokk na ci deret boo xam ne dañ koo tuur imma dañ koo rendi deret ji tuuru ca loole ni yéefir yi tey di rendi seen bàmpoox di def di taataan deret bi arab yi buñ daan rendi lu ñu mën a rendi dañuy taataan deret bi ñuy rendi am lu gën a ñaaw loolu da nga daan gis ku dem ba ci àll mu daal di xiif ñëw ci gileem gi rek dagg benn sidditam deret ji wal wal wal wal mu dékk ab këllam daal di jël teg fee ba mu xaw a wow mu jël daal di lekk suñu borom nag jàll wa ala na bépp deret bi tuuru xaraam na ngeen lekk ko amma deret ba des te yaram ba ca mooy tey boo rendi woon deret ba tuuru dana am deret bu des ci yaram bi waaye loolu suñu borom mi ngi koy jaarale ci ay machines yoo xam ne ñoo koy purifier mooy la nga xam ne rein yooyu liggéey bi ñuy liggéey ba ñu yàlla nattoo ñu def dialyse ay machines ñoo koy def loolu muy wone ne deret bi des ci yaram bi moom day laal amma deret bi génn bi ngay rendi su boobaa deret boobu moom nekkul lu baax muy damman masfuuxa beneen bi mooy yàpp mbaam xoox mbokk mbaam xoox képp ko am seetlu même bu dee lislaam aramul ko sax nga war koo bañ mbaam xoox la gën ci li muy lekk mooy sobe sobe rek lay lekk te it moo gën a ñaaw jukko ci mboolem bàyyu may loolu tax islaam moom aramal ko ci ñun almuhim wax yu bari borom xam-xam yi wax nañ ko ca dem nañ ba trouver sax ne yàppam li nga xam ne mooy togg normal mënul rey ay sax ya cay nekk ak yeneen ak yeneen amma ñun jullit yooyu yëpp du suñu problème suñu problème daal mooy islam ne na xaraam na xaraam na jeex na loolu jullit na bàyyi xel loolu yàlla araamal na ci yéen yàpp mbaam xoox noonu it la yàlla araamale xar nag giléem ganaar lum mën a doon bu dee bañ koy rey beneen tur lañ ca woo bu dul turu yàlla lépp loo xam ne bañ koy rendi dañ koo rendi lu dul turu yàlla daganul ci jullit mu di ko lekk loolu kon la aaya boobu di junj allahuma nag ba lislaam demee ba avancé soo delluwaatee ci sunna sunna dana la araamalal bépp njaa àll buy fadd gaynde yaag segg yaag yu deme noonu ak la nga xam ne picc yi nga xam ne dañoo am ay we di fadd di lekk yàpp muy aigle yaag ak yu deme noonu mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne lii nga xam ne dama koo araamal ci yéen médd mbaam xoox ak lu mën a doon koo xam ne da ngaa toll ci lor imma ci yoonu tukki wala ñu tëj la ci prison nga dema dem ba jàpp ne soo lekkul lii kat da ngay dee borom bi mu ne daganal naa la nga lekk ko bal borom xam-xam yi dañ naan faaraata la nga lekk ko mi ngi noonu mais benn jullit amul droit nekkat lii man du ma ko lekk ndax dafa xaraam ba loolee rey ko ndax maadaama lor nga rek xaraamatul kon boo ko lekkul def nga danger borom bi nag indi ci ñaari charte benn bi ba nga koy lekk beew yóbbuwu la ca mooy lor gu wir moo nekk ci yow moo tax nga koy lekk ñaareel ba it bi mu daganee ci yow ba nga cay lekk ba nga demee ba lor ga teggeeku continuer woo di ko lekk ay continuer woo di ko lekk loolee kon di mbir moo xam ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni ku mel na noom yàlla dana ko jéggal dana ko yërëm amma mbokk suñu boroom bokk ni xéewal gim ñu defal ñun lépp lum ñu araamal rek lu ñuy lor la yonent yàlla bi yu xarrimu alayhimul xabais lu lislaam araamal rek waatal ci yàlla ni bu ko scientifique yi dugalee ci laboratoire xam ne baaxul ci doomu aadama amma yahud yi moom bokk na natt bu leen yàlla natt woon suñu borom mu ne fa bi zulmin min alladina haadu xarram na alayhim tayibatin uxillat lahum yahud yi moom yàlla nattoo woon na leen ay ñam yu baax yàlla araamal ko ci ñoom te bokk na lim ñuy jàng fii mooy bu dee yahud ya araamal nañ ci ñoom lépp loo xam ne day am we la ca jiitu muy gileem yaag banjooli yaag yu deme noonu gannaaw ba Grèce araamal nañ ko ci ñoom loolu Grèce gu tafu ca kaw gileem ga wala xar ba wala nag ba wala lu jaxasoog butit ya wala lu jaxasoog la nga xam ne mooy yax ya amma la nga xam ne mooy graisse gi bën a bëri nga xam ne mooy ëmb jur gi yàlla araamal na ko ci ñoom lu tax ngir beew gi ñu beewoon borom bi nag mu ne man may ki am dëgg donte ne nii rasul sallallahu alayhi wasallam daan nañu ci waxit ba yàlla araamalee ci ñoom graisse lu ñu def dañoo dem jël graisse ga jaay ko dem lekk njëgg yàlla nag lépp lum araamal araamal na njëgg looloo tax yow jullit doo naan sàngara doo jaay sàngara doo lekk mbaam xuux doo jaay mbaam xuux ndax lu yàlla araamal rek araamal na njëgg yàlla mu ne mooy wax dëgg li nga noonu chixaal yi
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل من هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون barakallahu fiik suñu borom mu ni fa in kaddabuuk ay yow yonent bi buñ la fenloo fa qul rabbukum zu rahmatin wasia neel sa borom yàlla day neel seen borom yàlla day borom yërmaande la ju yàlla waaye nag wala yuraddu basuhu anil qawmi almujrimin kenn du delloo aw ayam ay mbugalam ci xeet boo xam ne nii dañoo doon ay kaccoor def ko ci bakkaar sa yaqulu alladina ashraku xalsa naa wax bokkaalekat ya law shaa allahu ma ashrakna bu neexoon bu neexul woon yàlla kon duñ ko bokkaale wala abauna suñu bàyyee duñ ko bokkaale wala xaramna min cheyin su neexul woon yàlla duñu araamal ci dara kazalika kazaba alladina min qablihim naka nii de la weddee woon ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu xatta zaaqu basana ba baa ñuy mos suñu mbugal qul hal indakum min ilmin fa tuxrijuhu lana nel ndax ñeen na leen ci xam-xam ngeen génneel ñu xam-xam boobee in tattabi'una illa zann yéen day topp leen lu dul njort wa in antum illa taxrusuun nekk loo nit lu dul di àpp përe rek ca mooy di nattale kese qul fa lillahi alxujjatu albaaliga ñeel ñeel ne yàlla la nga xam ne mooy lay yu jotele ya falaw shaa la hadaakum ajmain su ko neexoon mu jubal leen mboole seen qul halumma shuhadaakum alladina yashhaduun neel indi leen seeni seede yay seede ne anna allaha harrama haada ne yàlla kat araamal ne lii ngeen di wax fa in shahidu fala tashhad maahum bu ñu seedee nag bul seede ànd ak ñoom wala tattabi ahwa alladina kazzabu bi ayatina bul topp bànneexi ña nga xam ne dañoo wedde suñuy aaya walladina la yuminuuna bil axira ak ña nga xam ne gëmuñu alaxira wa hum bi rabbihim yaadiluun ci ñoom seen borom yàlla dañ koy utal ñuñ koy yemeleel mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne yow yonenti yàlla bi neel yéeféer yi lay weddi day sa borom yàlla borom yërmande la joyaa te yërmande moo tax ba ay nit taxaw ci kaw suuf weddi ko weddi ay yonentam bal bu leen neexee rey ay jaamam suñu borom bi continuer di leen xéewal continuer di leen aar ci bis bu ñu tuubee mu bal la yërmande munta paase lii waaye nag nee na bu ma demee nag ba sama mbugal di wàcc moom amul kenn ku mën a dox mën a delloo mbugalum yàlla mi ngi noonu kenn mënul delloo mbugalum yàlla heure bu ko yàlla nammee wàcc ko ci ab jaam loolu tax ba mbokk booy muslu muslul ci yàlla rek kenn ci yow mënulul la dara yonent bi alayhi salaam waxoon na ña ko gën a jege fexe leen ba mucc ci sawara laa ugni ankum min allahi shay'a mënuluma leen dara ca yàlla jalla wa ala borom boobu subhanahu wa taala mu ne bokk na lu yéefir yi doon laye ay yow muhammad yow yàlla mi nga xam ne mooy def lu ko neex ñun ñi ngi nekk di ko bokkaale sunu bàyyi di ko bokkaale sunu bàyyi ñoo araamaloon lii ñun ñu araamal lii nga def ne lii bu neexul woon yàlla dana am mi ngi noonu ca mbokk loolu mooy laye la nga xam ne mooy ay bakkaar suñu borom yàlla nag ne waaw kan moo leen wax ne mbir mi neex na yàlla lan mooy seen lay mooy yàlla seetaan na ko ah moo ne kaw suuf li ne lañu fiy def de ndax kon li ñuy def ci kaw suuf yépp daa neexe yàlla mbokk déedéet suñu borom yàlla daa bind ay mbindaa fanam ku nekk mu fixé la ca lam la fixé commencé ca malaaka yi benn yoon lañu am asamaan suuf montagne yi benn yoon lañu am garab yi bàyyuma yi ñépp benn yoon lañu am amma ñun nit ak jinne yàlla tëral ñu ñaari yoon mooy yoonu njuba ngi nii yoonu réere ngi nii yàlla may may la am xel soo tànnee yoonu njëb ci sa coobara la soo tànnee yoonu ndëgg sa coobara la amaa nag nga tànn yoonu ndëng ba pare daa ji ne nag lii mooy li neex yàlla Omar ibnul Xattaab indil nañ ko benn waay mu naan sàngara Omar na nañ ko duma ci jamonoom ko naan sàngara juróom ñetti fukki yar lañ lay duma biñ ñee di ko duma di ko waaju duma mu ne waaw amirul muminin waa xam nga ni lii yàlla ko dogal ci man rek omar nu dubla leen ko duma leen ko ci naan sàngari duma leen ko ci duural yàlla gi yàlla dana la mayum xel araamal ci yow sàngara nga jëfandikoo sam xel dem naan sa sàngara ba pare wëlbati ko waat naan lii yàlla ko dogal su ko defee mbokk doomu aadama dafay am lu muy delloo ci ndogalu yàlla xëy nga ñu ne la sa doom dee na yàlla ko dogal xëy nga ñu ne oto ba dafa tàkk yàlla ko dogal ak yu deme noonu yooyu ndogali yàlla la amaa nag def bàkkaar ba pare lay na ndogalu yàlla la jullit du def loolu abadan heure boo defee bàkkaar xamal ne sa responsabilité da ngay tuub toroxlu dellu ci yàlla su ko defee yàlla subhanahu wa taala baal la waaye ndogalu yàlla kenn du ko lay ci bàkkaar amaa yéefar yi nag loolu lañ doon wax loolu it moom ngay gis nit bidaa yi loolu la ñuy wax mi ngi noonu am na ñi fi woote ne seen maam day yonent la bu yàlla yónni dégg naa kenn ci ñoom bis mu naan waaw gaa yi xam ngeen aw fen du am téeméeri at mbokk aw fen du am téeméeri at ca depuis kañ la suñu borom yàlla bàyyi woon seytaane mu nekk ci kaw suuf di réeral doomu aadama yi ndax kon tax na seytaane baax déedéet firawna bi muy taxawee naan man may yàlla bi gën a màgg ñaataat la ko yàlla seetaan loolee kon mbokk ñu xam ne ay mbir mu sax kenn du ca lay ne lii yàlla gërëm na ko yàlla dañuy indi ci kaw suuf di ñu nattu allaaxira la ñu yàlla di àtte am naa lëm bëgg ak lam bañ ay yonentam leeral nañ ko su la neexee jëfeel su la neexee bàyyil borom bi nag ne ana lan mooy seeni preuve yuy wone ni yàlla dafa araamal li topp leen lu dul seeni bànneex topp leen lu dul seeni njort te it mbokk lii di base bu mag bu jullit ñëpp war a jëfandikoo ngalawaay jullit lépp looy jëfandikoo sa diini na am ci lay yu leer yoo ko teg yu jóge ci yonenti yàlla bi li ëpp ci diine yi tey nag lan muy seen mbir mooy dañuy njortu rek njortu rek ni lii daal lii ko war a waral jeex na boo ko xoolee sahabatul kiram bi yàlla dogalee ibrahim mooy benn doom bi yonent bi alayhi salaam am ca madina mu dem ba am un an sahaaba yépp kontaan yonent yàlla bi am na doom bu góor yàlla dogal mu am un an et demi suñu borom ñëw faat ibrahim bis boobu tombeek yàlla ñu jàpp jant bi ñi xamul ñépp ne cey asamaan sax mi ngi jooy ibrahim yonent yàlla bi ko rek ba muy julli julli jant googee lu mu leen wax xam leen ne jant beeg weer bi du ñu dee ngir kenn juddu wala kenn dafa dee ay mbir la yoo xam ne yàlla koy dogal bu ngeen ko gisee julli leen loolu nag mbokk njort boobee lu bari ci doomu aadama yi moom la ñuy dem ba jàpp ne masalan sëñ diw dey moom li mu defal yàlla ñun ñépp xaj nañ ci wax naa leen ko jataay yu baree baree baree bari ca moo di ne sama nopp yi moo toog dégg koo xam ne du télévision du rajo mu ne sëñ diw li mu liggéey ci Sénégal yii firi Sénégal sax yàlla dana dugal ajjana bokk loolu mi ngi noonu ñam ko doon waxal ñëpp kontaan fettaxu ca loolu mooy ay njort yi nga xam ne njort nañ ko rek su ko defee suñu borom nag mu ne ana lan mooy seen preuve génne leen loolu ah yonent yàlla bi gane si na sëñ diw jibril wàcc na ci sëñ diw yàlla yéege na sëñ diw sëñ diw mais ana preuve bi loolu koy dafa yomb képp ci ñun bu ko neexee mu ne biig maag yàlla ñoo bokk naan ataaya loolu koy yomb na waaye nag ana sa preuve suñu borom mu ne génne leen seen preuve ngeen won ñu ko bal xam leen ne yàlla mooy am lay bi gën a matale lay bi gën a matale mooy lan yónni ne ay yonentam wàcc na ay téeréem nee ni lii laa bëgg ku ca jaar ma dugal la ajjana ku ko may ma dugal la sawara léegi nag ëllëg gi si biir ku ñëw di lay sa lay yooyu sa mbiri bopp la waaye yàlla moo gën a matal la nga xam ne mooy ay lay su ko neexoon nag teg ñépp ci yoonu njub comme ni mu ca tegee malaaka ya waaye li ko neex mooy mu may ñu xel tëralal ñu yoon yi imma shakiran imma kafura kum neex sant kum neex bàyyi gannaaw borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbati ko waat ne indi leen seeni seede ñu seede loolu buñ demee bay seede nag yow bul ànd ak ñoom ci seede googee te it mbokk doomu aadama dafa am lu muy mën a maslaha wàllu àdduna loo ca mën a maslaa ak say mbokk ak say dëkkanoo maslaa ci ak ñoom amma bu ajoo ci wàllu diine mbokk diine di su ko maslaa say mbokk yi woote shirk say mbokk yi woote bidaa loolu maslaa amul foofu fa in shahidu fala tashhad ma'ahum képp kuy seedeel yàlla leneen ci diinim ji yow bul seede loolu ànd ak ñoom mi ngi noonu bànneex ya nga xam ne it jël nañ ko dugal ko ci diine yàlla ji bu leen topp ca loolu wala tattabi ahwa ahwa alladina la yuminuna mi ngi noonu bi ayatina bul topp seeni bànneex borom bi subhanahu wa taala mu ne bul ma toppalit képp kuy yemale yàlla keneen képp kuy yemale yàlla keneen ca mbokk wallahi bokk na it natt bu ñu yàlla nattewu mooy lu bëri ci doomu aadama yi tey jàpp nañ ni lu yàlla mën a def rek am na kenn ci jaami yàlla yu ko mën a def ba la ñu doon nekk di ko yaakaar yàlla la ëpp ci doomu aadama yi tey ni nga ko yemele yaakaar ko ci ñoo xam ni sunu njortu moo nekkoon ñoom dañ doon ñëw di woote jëme ci yàlla nii nit ñi fàtte nañ woote boobu jël leen lay place yàlla ñu defal leen ko ca loolu mooy erreur bi gën a garaaw bu doomu aadama def ci kaw suuf yàlla na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci mi ngi noonu Cheikh Ali
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
jazakallahu xayra suñu borom mu ni qul taalaw neel kaay leen atlu ma xarama rabbukum alaykum ma jàng nag la nga xam ne araamal na ko ci yéen seen boroom li jëkk alla tushriku bihi shay'a mooy seen boroom yàlla bu leen ko bokkaale ak dara wa bil walidayni ihsaana bu dee ca waajur yaa def leen njëkk jëm ca ñoom wala taqtulu awlaadakum min imlaaq bu leen rey seen doom yi ci ak ñàkk nahnu narzuqukum wa iyaahum ñun ñoo leen di wërsëgal di wërsëgal njaboot googe wala taqrabu lfawaaxish bu leen jegee bàkkaar yu ñaaw ya ma zahara minha wa ma batan la nga xam ne feeñ na ca ak la ca nëbbu wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilxaq bu leen rey mukk bakkan boo xam ne yàlla da koo araamal lu dul ci dëgg zalikum wassaakum bi loolu de ñeel leen lañ leen dénk ca moom laallakum taaqiluun ngiree ngeen doon ñu xellu mi ngi noonu mbokk am na fukki ndénkaane yi tegaloo sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibnu Masud nee na toog nag ñun ba mujj mu daal di rëdd benn rëdd bu mag bu jub def ci wet yi ay ñall yu sew daa jëne nag lii mooy yoonu yàlla bu jub bi yii rëdd yu sew yi bu nekk seytaane nga ca taxaw di woote commandement yi day waxit ne li nga xam ne mooy tawraat la ca nekk ci ndigal yéen a nga dégg les dix commandements la ca nekk ci ndigal yépp aay yi tënk na ko ay mooy ay bi nga xam ne da ngeen ko tiim ak la nga xamee ne nii mooy ñaari ay yooyu topp ci gannaawam suñu borom yàlla dafay wax ne kaay leen ma wax leen li yàlla araamal jàng nañu sànq ne yéefiri arab yi créé nañu seen diine bopp araamal lu leen neex borom bi ne leen xam ngeen lu yàlla araamal mooy ku koy bokkaale lu mën a doon te it mbokk xamal ni musiba bi gën a rëy ci kaw suuf du njaaloo du rey nit du naan sangara waaye nga bokkaale keneen ak sa borom jalla wa ala nga la way bàyyi leen xel ci loolu bu baax bokk na it ci ndénkaane yi yàlla dénkaane mooy way jur ñu def njëkk jëm ci moom loolu mbokk lum lay won ñàkk a def njëkk jëm ci way jur rek loolee bakkaar la amma nag def lu ñaaw jëm ci say way jur mooy bakkaar yi gën a garaaw gannaaw bokkaale ak sa boroom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog nag sahaaba yi ba mujj mën a waaw xanaa du ngeen kaay ma wax leen bakkaar yi gën a màgg ci bakkaar yi gën a màgg akbarul kabair ñu ne ko ah kay mu ne mooy bokkaale ak sa boroom ñaareel ba mooy uququl walidayni def lu ñaaw jëme ci say wayjur mi ngi noonu ñetteel ba mu ne seede ay fen waaye mbokk wayjur mi ngi noonu jullit xam ne suñu boroom mooy ki la bind waaye sa wayjur mooy sabab bi sabab boobu nag moo tax yàlla lënkale aqam ak aqu wayjur yàlla du la gërëm jamais tant que mataloo sa aqi wayjur bokk na li yàlla gën a gërëm ci yow gannaaw jaamu gi nga koy jaamu direct njëkk bi ngay defal sa wayjur abdullah ibnu masud nee na yonent yàlla bi ana ban jëf la yàlla gën a bëgg ci li ñuy jëf ci kaw suuf mu ne ko mooy nga julli ca waxtu wa mu ne ko waaw gannaaw loolu mu ne ma mooy nga def njekk ci say wayjur ma ne ko gannaaw loolu mu ne ma nga dem jihaati fi sabilillah kon jihaat fi sabilillah li muy màgg màgg def njekk ci waajur moo ko gën a màgg loolee jullit war ko bàyyi xel buy dund mi ngi noonu nga taxawu ko respecté ko loo mën ci lu wax ju baax loo mën ci jëf ju baax nga defal ko ko bu faatoo ngal la waay rafetalal jëm ci moom dee ko ñaanal foo mën a toll dee ko ñaanal jéggal soo mënee génneel ko sarax soo mënee ajal ko makka soo mënee def lépp loo xam ni lu baax la rek da ngay gis ni ni ko waajur bi soxlaa jamono bi muy dund jamono bi mu nekkee ci barzaqit noonee la soxlaa tuyaaba joo xam ne day jóge ci yow doom mi ngi noonu bil waalidayni ihsaana gannaaw loolu bokk na lu yàlla araamal rey suñuy doom mbokku arab yu jëkk ya da nga daan gis ku ci am ñetti doom jàpp ne moom dépense am matul kon bu soxna si amaatee doom ah loolu kon problème day gën a am doom bu mu am dem gasul suñu borom yàlla nag ni bu leen rey seen doom yi ci biirum ñàkk man maa gàddu seen wërsëg maa gàddu seen wërsëgu njaboot bu ñu demee ca suuratul isra suñu borom yàlla subhanahu wa taala danaan bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk te mooy lu bari tey ci suñu intellectuel yi mooy dañuy bañ a am njaboot ngir ragal ak ñàkk te mooy nit ñi jàpp ne njaboot gi ni ma leen war a taxawee vraiment ñaar doy na ci maximum trois waaye nekk fi ay géniteur di am juróomi doom fukki doom ñu nekk fi di sonn kaza wa kaza loolu la ñuy calculer ala kulli xaal suñu borom mu ne foofu moom man maay wërsëgal doom yi di leen wërsëgal yéen muy ñaari aaya yoo xam ne bu ne dafa méngoo ki nga xam ne am na waaye ragal day ñàkk suñu borom jiital wërsëg wi ki nga xam ne moom dafa jàpp ne moom man kat dama aay bi ñuy jàng fi borom bi ne min imlaq mooy kii dafa ñàkk jàpp ne bu yeneen doom ñëwee loole da ngay gis da leen di lor suñu borom ne déedéet xam leen ni man maa leen di wërsëgal di wërsëgal doom yi loolee kon di julit lu muy war a gëm ca ak bari ay doom yu ëpp wërsëg seen bàyyi am déet ak bari tey ay bàyyi yoo xam ni ca àll ba lañ nekkoon di bay ak a jeexaat yàlla may leen ay doom tey ñu yëkkati ay immeuble gaare ay kat-kat ci biir ndakaaru am déet te wallahi ñu bari ci ñoom sax mosuñoo teg seen tànk ba mu école kon ñu xam ne mbokk doom yàlla koy barkeel bokk na lu yàlla subhanahu wa taala mën a def kay nekk sam caat bi fukkeelu doom fa la yàllay jaarale xiiwal gi lay xettali àdduna ak alaxira am déet yonent yàlla yanquba yusufa alayhi salaam mooy fukkeelu doomam ak benn yusufa ca la yàlla jaarale teraanga addunaam mu jële leen ca kaw ga dëkkal leen ca taax ya ca Égypte ca la yàlla yokk ay darajaam mag famim ca mooy yokk seeni daraja ca alaxira moom la ko wax li yutimma kazalika yutimmu llahu ni'matahu alayka wa ala ali yanqub mi ngi noonu ca la yàlla mottali xéewal su ko defee kon nga la waay ñu bëgg doom yépp njaboot gépp amma lañ leen waxoon tafsir passé arab yi ñoom dañ naan gas suul ñun nag nan la ñuy gase suul mooy da ngay jur doom doo ko jàngal diine sakk woo ci moom lu dul mu réussir ci wàllu àdduna mu dem ba toll ne baayam mënul tari fatiha xamul luy julli xamul luy koor xamul luy nangam mbokk rey bi mooy rey bi gën a garaaw ci rey yi borom boobu nag subhanahu wa taala ni bu leen jegee ñaawtiif yi mbokk ñaawtiif buñ ko waxee la ca jiitu mooy njaaloo waaye bokk na ca lépp loo xam ne bakkaar bu mag bu bon la suñu borom ne bu leen ko jege te it mbokk yonent bi alei salatu wasalaam loolu la ñu doon wax mu ne sàmm day bu demee ca wetu toolub jaambur dafa sàmm dana am chance lool ngir jur ga dugg ca caawa ga kon lépp luy bakkaar yow julit sori ko loolee nag bu dee njaaloo ga suñu borom nee na la ca feeñ ñépp yëg ko ak la ci nëbbu yépp a yem benn baaxu ci te xam ngeen lu bari ci doomu aadama yi suñ gisee koo xam ne dañ ñëw masalan ab càgga buy wër la dañ koy xeeb dans la société mais buñ gisee koo xam ne benn coroom rek la am loolee ñu bëri garaawuluñ ko góor goo xam ne it mi ngi wër ci baar yi ku mu gis ànd ak moom ci njaaloo ñu bëri dañ koy génne ci société bi am naa koo xam ne moom benn gelam rek la am dañuy jàpp ne defu lu garaaw waaye suñu borom mu ne ñaar yëpp a yem la ca feeñ ak la ci nëbb yëpp bàyyi dañ ko gannaaw ba it borom bi subhanahu wa taala ni bu leen rey benn bakkan bu yàlla araamal lu dul ci dëgg mbokk bakkan yi yàlla araamal bokk na ci bakkanub jullit jullit lenn dong ngay tax ñu rey ko daa xëy xëy bàyyi diine ja ñaareel ba daa rey mbokkum jullitam ca moo ko tey ñetteel ba dafa am soxna wala mu am jabar dafa wala mu am jëkkër ba pare wëlbatu ko njaaloo ñii rek lañu war a rey ca kan moo leen am droit rey mooy atte kotub lislaam rek moo am droit rey leen waaye bu dul looloo mbokk jullit amoo droit rey sa mbokkum jullit lu dul ci loo xam ne day nekk légitime défense mooy toll na foo xam ne yegg na ci yow bu la reyul boo ko reyul loolu mën na laa rey yow sa jubluwaay mooy défendre sa bopp doo jublu te rey ko amma bu dee da ngeen am histoire politique sport syndical ay tool yi ngeen di xëccoo nga mer mu mer nga jëli arme mu jëli arme ku ne fas yéene rey sa moroom yonente bi alei salaam nee ne ki rey ak ki ñu rey yépp sawara lañ bokk jëm ay yumi yàlla yi ne ki ñu rey lu tax mu dem sawara mu ne daa xëroon ci rey mbokk jullitam loolu ko yóbbu sawara lii mbokk juróomi ndigale ngi nii juróomi ndigal yi des insha allah xam naa ñoo ngi koy jël gannaaw bu ñu fa dajawaatee ci beneen tafsir doonte ne ne yaakaar naa caamin yépp dañuy d'accord ci ne àllarba bii di ñëw moom tafsir mun ta nekk waaw kon insha allah àllarba ba ca topp bu soobee yàlla moom daañu jëlaat la nga xam ne moom mooy tafsir bi yeggale ndigal yi nga xam ne mooy ndigal yi màgg yu jullit bu nekk war a bàyyi xel kon mi ngi noonu mbokk jullit wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw alhamdulilah xam na muy wax rek koo xam ne dene papaam def na ko moom am na kàttanu jënd xar mais papa ji na ko bàyyi rek ma jënd benn xar yéene ci waa kër gépp ala kulli xaal papa ji bu jëndee benn xar yéene ci waa kër gépp loolee am na am nañ ñoom ñëpp tabaski amma moom ci boppam it bu bëggee jël xar rey ko ngir jaama ko yàlla loolee papaam du ko tere loolu waru koo tere loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee ne mu ne man gox bi ma nekk kat ñoom ñëpp àllarba la ñuy tabaski léegi man naka lay def ala kulli xaal bu dee ne ñoom ñëpp àllarba la ñuy tabaski su boobaa àllarba ngay ànd ak ñoom tabaski àllarba ngay ànd ak ñoom julli tabaski amma nag bu doon tene ne yow gëm nga ne bisu julli bi talaata la am nga foo mën a dem julli ji su boobaa yow mën ngaa dem julli ngir bañ a féewaloo ak ñoom nga bàyyi ba àllarba nga doog a rey sa xar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam comprendre ma li mu wax de mooy waa ki nga xam ne tabaski dafa jot amul xar ku mel noonu dañ naan ko am nga tabaski ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaskil ne xeet bi yépp amma bu dee ne borom kër la mu dem lépp rey xarit loolee da ngay gis ne lu baax la am na tabaski heure bu amee mu fay borom waaye daal dañ ne woon nekkatul ci moom waajib buñ teg ci kawam maadaama amul amma nag bu amee ku ko lebal mu rey ba jekk fay loolee moom dana am tabaski wallahu alam naam bismillah waaleykum salaam naam
julli moom moo jiite nag waaye nee na bi ñu bi ñu sëggee dafa gis ne sajaada bi dafa xel trop lool am am taw léegi nag bu ñu jullee ba pare ndax moom dafa war a waa baamuwaat julli bi wala gi
ala kulli xaal bu dee ne dafa dafa yëg ne xeeñ na ca moom gisu ci benn trace sow gisu ci lenn lu tooy loole da ngay gis ne nekkul lu yàqu julleem la ñuy bañ ci julli place sobe mooy sobe ba yow laal la mais maadaama moom gisul saw ba yëg na rek ne xeeñ na loolee nekkul loo xam ne lu yàqu julleem mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaleykum salaam ñu cotiser ci kër jënd xar ndax dagan na dagan na waaye nag dañ koy féetale kenn c'est-à-dire que am xar di su ko bokk waaye daal bu dee ne kenn ci masalan seeni mag la ñu lim jàppalante jo mu jël xar bi bu ko defee moom danaan yàlla kii sa hëdu yi la maag sama waa kër loolee moom day yóbbaale tabaski kër gi yépp li ñuy bañ daal mooy ay kër yu bokkul ñu dem ko di sa jënd am xar siddoo ko ko do yóbbu loolu dañ naan déedéet loolu ci nag la mën a nekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam ah naam loolu laa jëlee luy atte yàpp mbaam foofu.
luy atte yépp àll mbaam àll pardon mbaam àll.
waaw waaw ala kulli xaal bu dee ne bu dee ne mbaamu àll moom texte bu leer bu koy araamal moom amut mi ngi noonu nit ñoo ko tuddee mbaam mais tur bi ñu ko tuddee mbaam taxul mu doon loo xam ne nii lu araam la ndax moom yorul ay selli mi fadde di lekk yàpp comme ni ko yeneen yi di lekkee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam pour mu mu koy naan mu koy naan ala kulli xaal lépp loo xam ne dafa xaram ñu lekk ko day xaram ñu koy na dafa day xaram ñu koy naan lépp lu xaram ñu lekk ko day xaram ñu koy naan bu doon tere nag loo xam ne lu muy diwoo la loolu moom du luñ koy tere mais bu dee lu muy naan moom loolee moom da ngay gis ne dañ koy tere ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah dafay laaj mu ne ndax moom wóoru kafaara da nga war a boole ñaari weer yi wala ñu na ko wóor ci compter.
weeru kafaara ñaari weer yépp ngay boole woor dara du tax nga dog ko lu dul ngantu sharia boo ko dogee ci sa coobare bopp da ngay recommencer à zéro mi ngi noonu wallahu alam naam damaa dégg ñaari wax ci boo naree rey bu wax sa kawar bu dagg say weer ñii da ngay dem ba julli ji ba rey sa xar door koo def am ñu boo xëyee rek mën ngaa towaale tu sangu dagg say weer et cetera comme ni ko waa kii di def.
ala kulli xaal déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu bu weeru zulhijja jógee feeñee bul laa laalati say we wala ngay laal sa karaw lu dul ne da ngaa rey loolu la yonent bi alayhi salaam wax kon da ngay rey ba pare doog a mën a wattu doog a mën a lelli say we mais kenn waxule ne bisu tabaski bi da ngay xëy wattu lelli say we doog a julli ji déedéet da ngay dem julli ji ba ñëw rey sa xar doog a nag wan a wattu wala lelli say we noonu la ko yonent bi alayhi salaam waxee na xam mbokk bi waaw waaleykum salaam am li ñuy def ak histoire Abdallah ibn Xudaafa bi quoi maanaam ba mu bañ ko jàppee prison ñu jox ko yàpp mbaam bi nangu koo lekk ñu jox ko tàngoor bi nangu koo naan
la nga xamee ne mooy yàpp sàngara ci Abdullah ibnu Xuzaafa xaal yi dafa bokkul Abdullah ibnu Xuzaafa dafa nekk ci guerre ci wane dignité l'islam loolee bokkul ak ki loru ci ay prison wala ay kii moom dignité l'islam ak màggaayu l'islam loolu la doon wane moo tax buur bi rey na ñi mu àndaloon ñenn ci ñi mu àndaloon bëggu koo toroxal jàpp ne ci loolu dana ci toroxal l'islam mu résister ci loolu ba mu naroon ko rey mu résister moo taxoon bi mu ko joxee yàpp pour mu jàpp ne ragal xiif dana ko tax a lekk loolu lu mu leen wax mooy lii dagan na ci man mais du ma ko lekk loolu kon xeexu l'islam moo taxoon moo tax it résultat ba mooy la ca xam comme xam nga histoire bi rek xam nga luy résultat ba ala kulli xaal ñaari xaal yooyu bokkuñu naam waaw bismillah waaw nga maa bëgg a takk ñaareel sama yaay nanguwul la ma lay wax daal mooy naxanteel ak sa yaay ba sa yaay nangu waaw loolu daal la ñuy wax waaw waaw ah mooy mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk nañu xam ne araamul di araamul araamul nga dem takk jabar bu su yaay d'accordul waaye nag du luñ lay digal yaay dafa foor ci doomu aadama jigéen ñi bari nañ na xas booy takk takkal ku su yaay d'accord yaay bañ na naxanteel ak moom weer ay weer même bu doon rin bu déwén waaye yaay ak ni mu jegee doom nga dem takk koo xam ne si yaay bëggu ko tôt ou tard day indi ay jafe-jafe donte ne kenn du la wax ne xaraam na nga takk ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa ñu mujj ci mbokk bi rek dafa am ñuy dem fu sori waaw bismillah waaw waaw waaw loolu day ngëneel la maadaama rasul sallallahu alayhi wa sallam daf ne nit ki defarul yàlla ci yeneen fan lu mu gën a bëgg ci fan yi da nga amoon ay boru koor nga tànn ci bisu juróom-ñeent yi tàmm ko di ko ci fay loolee sax am na borom xam-xam yu doon dabu ngëneel boobu mooy di fay ci bisu juróom-ñeent yi donte ne ne bu doon da nga am kattan moom ci la nga xamee ne nii mooy mën a fay koor maadaama fi ngay woree ak fi ngay demee ca fukki fan ya da ngay gis ni lu jege ñaari weer dox na ca nga fayoon say bari koor la nga xam ne mooy naafile bi nga jagleel ko juróom-ñeenti fan ya loolu mooy la gën amaa nag boo fayul woon ba baa juróom-ñeenti fan ya ñëw nga fay ci juróom-ñeenti fan yooyee loolee ñu xam ne moo gën bàyyi ba mu paase ngay doog a fay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam kon mbokk yi xam ngeen incha allah ni ñu leen ko waxee talaata bëgg nañ julli fii ñi ngi bëgg a julli it neuf heures et quart ngir dafa am ñoo xam ne léeg-léeg dañuy jóge fu sori ak embouteillage yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu nangul kuy julli àllarba walla waaye li ñuy yàgg ñaan nun naka jekk li ñu gëm mooy problème weer bi nattu la bu yàlla nattoo lislaam nattu la bu ñu yàlla nattoo sun maam yi amuñu woon problème bi ndax boobu communication demewul nii mu demee ni tey amma biñ demee ba adduna bi nekk village planétaire lii xew fii mooy xew fi yëpp looloo tax fitne bi dal ñu su ko defee lenn dong moon ci mën a génne ku nekk la ngay def def ko ci yàlla tax te ñaan yàlla boole nangul ñëpp heure bu mbiru ijtihaad amee ñaar moo mën a am képp koo xam ne sincère na ci yeneen bi alei salaam nee na da ngay tombeeg dëgg yàlla fay la ñaari fay wala nga juum yàlla fay la benn fay waaye jàpp naa ne bépp jullit boo xam ne wóoroon na ko ci yàlla ne tey jii day mooy bisu korité wala tey jii day mooy bisu tabaski da ko fa bàyyi di jàpp beneen bis loolu daal kon loolu la ñuy wax yàlla na yàlla boole nangul ñépp juyoo bi am yàlla na yem ci jëf yi te bañ a yegg ci xol yi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain